ay ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na bàyyi jili Père Birahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare làmb rek ñu ngi lay jox loxo di la siyaaraat di la màggal di la baalu àq bu baax te di la baalu àq di ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ni moo am jéggal yàlla na suñu borom boole jéggal mbokki bu ngeen gisee fi ñu ñëw nag nga xam ne namoon ngeen ko lool namoon ngeen Père Birahim moon ngeen télé bi nemmu ngeen per Birahim mu ñëw décortiquer leen làmb joo xamante ni combat yi neex la événement yi làmb nag yi fi jot am dafa bari neex na loolu macha allah dañuy indi ñaari combat su ko defee per décortiquer combat bi ñu waxtaan ci xool xale yi euh, ban erreur lañ def ba daanu ak ban erreur la euh, la adversaire bi def ba daanu ban njàmbaar la mbër mi def ak intelligence ba daan combat bi nga xamante ni moom la gagné gannaaw loolu damay nuyu Père Birahim bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi Père maa ngi lay nuyu. waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. Hmm. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk internet yëpp yi nga xam ne ñu ngi safoo site bi. Hmm. wasaare. Eh, gëjoon naa ci lool wax dëgg yàlla waaye xam nga rek fi mag moom. dëgg la mag ak gone du benn. day nekk euh, wéradi gi ak yu mel noon rek. loolu la quoi. Mm-hmm. waaye maa ngi sant yàlla bu baax a baax nag bi ma mën a dellusiwaat mm-hmm. taxawaat ak sama doom ak samay doom samay doom daal mm-hmm. kàggu Abdou Khadir Bachir Ousseyn maa ngi nuyu ñëpp ak sama doom jigéen ji benn benn ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal ak ñuy seetaan di safoo ñoom Biram Ndaw Ndoy sama xarit Biram Ndaw Ndoy waaw ak ñoom Fallou nga ñoom euh, ne ak sunu waajooju nekk Belgique euh, kii damay fàtte tur bi Euh, sama waaja rek ndeysaan sunu waaja ndeysaan ku ñu safoo lañ maa ngi nuyu ñëpp daal hmm. di nuyu nag sama doom joo xam ne ji ancien basketteur la di ko wax Bamba Seye Bamba Seye waaw moom ku baax la sama doom la joo xam ne ji sama jarbaat la hmm. moom it dafa safoo si di moom làmb rek ko ñor moom it dëgg la dëgg la hmm. maa ngi koy nuyu moom it kon nag waaw maa ngi ñu mu nekkal ñëpp daal kon nag tey di safoo ñu dellusiwaat nag tey waxtaan ci ah làmb ji nga xam ne lamb simple yi fi jot a am hmm. parce que lamb dóor yaa ngi ñëw hmm. waaye dañ ciy boole lamb simple yi foofu mooy école bi dëgg la ah. mu doon loo xamante ni làmb ju neex la dañuy waxtaan làmb simple hmm. mais làmb simple keroog du ñu gis euh, beneen beneen révélation bu wane bu bees bu ñëw euh, doon tas yaakaar tas yaakaar tur bi nag moom dafa dafa dafa yéebu ci lu baree bare tas yaakaar tas yaakaar ah. de baaxul. lool day sama góor gu tedd ga papa tubaabu joor yal na ko yàlla yërëm. Ah. ak tubaabu joor yal na yàlla yërëm ba nga xaran ak Mor Fadam sama waajo daf ñu daan dénku ñaar. Hmm. te naa leen ko dénk dénk ko ñu may seetaan bàyyi leen mooy fecc ko leen ak tas yaakaar. ndeysaan. waaw papa papa Baye hmm. yàlla na ko yàlla yokk leer lii la ma daan wax. Hmm. maag tubaabu joor fu ñu mës a toog daanaka mooy leen ñaar. fecc ko leen ak tas yaakaar. kon na tas yaakaar moom man su doon moom dinaa wut weneen tur wudul tas yaakaar tas yaakaar moom. Hmm. moom ah. ah mais père ma yaakaar ku daan sa morom la tas nga yaakaaru morom ma. waaw waaye tas nga yaakaar waaye làmb yaakaar la rek tasante yaakaar la waaye tas yaakaar. <laughs> yow tam léeg-léeg nga dugg ci combat boo xam ne dem nga ne xam ne kii maa ci ne waaye du ci am dara. boo ah. sa yaakaar yaa ko tëkk tas. Ah. parce que da ngaa ah. combat yoo xam ne boo hmm. ci doon teg ki moom. déedéet doo teg ki moom de. bu daan da daan bu daan daan Franc da sa gëm yi rek. mais nag bëri na fa bëri bu rëy. boo xam ne bi action ba mu def loolu ko yóbbu xëy na dañ ci waxtaan ngeen wax ci seen xalaat ñu wax suñu xalaat ay ca kon dañuy dem xool combat bi doxoon ci diggante tas yaakaar ak franc euh, arène nationale ñu ñëwaat père Aïcha euh, père waaw tas yaakaar moo la moo la woon ginnaaw Franc moom ngeen moo yor nga position kii position bi am bi hmm. Franc moo jàkkaarloog ñun nele hmm. boo xoolee ci bët nii hmm. da xam ne Franc moo ëpp moo ëpp doole mais kii defe naa moo xaw sut taxawaay waaw tas yaakaar tas yaakaar moom su ko yaakaar. Mhm. mais kële moo xaw ëpp kattan. ci mhm. ci gis-gis laa wax. Mhm. waaw boo xoolee da ngay xam ne kii moo ëpp kattan. moo ëpp kattan mais léegi ñoom ñaar yëpp tànku ndejoor la ñu. te gis nga franc ci boppam. main main droite lay sole pour sa pied gauche bi. main droite lay sole. pour bu la ëñee sa pied gauche bi ñoom jàpp pied gauche bi. wala mu wër la ndomba. léegi nag kii te ba te kii boo xoolee ni mu taxawee da ngay xam ne tànk bii la mën a bëree bii mënu ko bëree. dëgg la léegi nag waroon na tey fermer poqataanam ba nga xam ne bi xam na ne kii loxom bi dina dugg fii te su duggee fii foog mooñ ko mhm. mooy dëpp sol lalli mhm. foog mu ñëw te bu ñëwee tànk bi mun tëbëre mooy ñëw <laughs> wallaay père bu bu ñëwee tànk bi mun tëbëre mooy ñëw boo xoolee taxawaay bi nii rek kay ah. leer na nañ hmm. kii day dëbb sol lalli hmm. tànk bi mu soxla bii moo ne ci ginnaaw hmm. te tànk foofu loxom kii dem ci poqataan tas yaakaar li moo doon jëkk def xam na ne kii loxoom poqataanam ndeyjooram bii sama poqataan mii la jëm. dinaa ko feneen ba du fi ñëw. wala su fexee seytaane mën na bu ma dugg fi nag dama koy tëj. Hmm. waaw bu toogee day crochet mbagg mi. day bu bu dugalee loo xam rek da koy crochet bu ñu amoon kii naa la ko wan. Hmm. par ma ñëw. yow teg nga droit ma teg droit nii. nga ëj ma nii nga dugg sa loxo boo dugalee. nii laay def dama koy crochet. dama koy crochet. Hmm. daal di éliminer bii. gis nga ko. nga xam ne gis nga fi ma xool fi ma teg sama loxo téye ma fii de. Hmm. parce que fii boo fi tër ci ko da ngay rëcc. Hmm. fii hmm. boo fi tër ci ko da ngay rëcc. damay uh-huh. waaw boo rëccal. Uh-huh. ay yow dina demal demal. ah <laughs> per ah xam nga ah, <laughs> léegi dem nga. léegi man fii laay teg loxo bi fii. dindi ko. dindi ko. dindil si dindil <laughs> dindil ba tey dindil ñaari baaraam laal téye de ñaari balaam laa ko téye xoolal ñaari baaraam fii nga koy teg daal di écarté nag. te fii nag crochet bii nag. Mhm. daal di wàcc daal di fexe ne ciix ngembali nag. jàpp loolu commencé bëri. bu fekkee mën nga ngemb loolu mooy yoon. kon su ko defee loxo bi fii. Mhm. fi mu ko dugal nii. Mhm. fi mu ko dugal nii. xam nga ko mooy fooru franc. comme dugal na ko fii bu ko fi bàyyee rek da koy ëñ. su bàyyee loxo bi day ëñ. day ëñ añal su ëñee gis nga. day daal de ko da ko daal di jox parce que waaye léegi soo ko fi dugalee. crochet naa la añal. suma nee nii dem. waaw lii am njàng la de. Mm-hmm. waaw boo ëññee fooy dem. doo dem doo dem man nii laay def rek. Mm-hmm. maa ngi loo am. dara dara doo dem. waaw parce loxo bi caabi ji tëj naa fii. Mm-hmm. loxo bi dugg na sama pokkitaan pied droit nga teg ma dugal nga sama loxo. dama lay tëj. dama lay tëj. waaw comme dama ko jóg waroon bañ. waaw doo ko am. dégg nga parce que tànk bii soxla woo ko bii nga jëli. parce que bi nga ma ëññee damaa ñëw. tànk mhm. bii nga soxla bi nga mënta bëree. dafa ñëw dafa ñëw parce que yaa ma ëñ. Mhm. ëñ bi mooy làlli bi moom la ñuy wax làlli. Mhm. comprendre nga làlli. mooy dëbb sol. ne nii ëñ waa ji mu jóg. nga wàcc waaw léegi nag boo nee bii rek bu ne yomb sa boktar rek. crochet daal di éliminer bii soir nga téye fii wala nga téye fii. waaw du bëri. parce que boo téyee dootul liggéey. ah léegi du liggéey liggéey doo am dara. comme ba suba du ko am mais soo ko bàyyee mu dugal loxoom ci pokkataan ci ku lëpp doole su la ëñee tànk bi day ñëw. ayca ñu dem ci combat bi Mbembe. dem ñu dem ayca. waaw. waaw ah, gis nga ñu ngi noonu. waaw di leewaatoo ñoom ñaar. waaw Franco yoot. day yoot ba jéem ko jàpp rek. Mm-hmm. gis nga. Mm-hmm. gis nga gis nga ñu ngi jàppante baaraam jàppante. Mm-hmm. waaw parce que tamit obli. fii warul nangoo jàppante bi. tas yaakaar jàppante waaw tas yaakaar. Hmm. na moytu jàppante loxo bi. Hmm. mais moo waroon a fexe di jàpp waaye fa fa warul fexe. Hmm. ba euh, kii di ko jàpp. parce que ki lépp doole bu la jàppee rek moo lay jubale fi ko neex. ayca jàppante ah, sol nañ teel foofu gis gis nga. daaw na dëbb na ko xam nga dëbb na ko naax. lii la olo ah, booy wax ah, naax. teel ma foofu waaw mais bi mu dëbbee naax. kii def ko ka léegi euh, euh, franc mi. fii la fii bii la soxla si soxlawul bii. tànk bi soxlawul tànk ndi jooro bii la war a ñëw parce que fi mu bëgg a jaar côté bi mu bëgg a jaar mhm. mooy côté côté côté gauche am bii la bëgg a ñëw mhm. demal añël demal ñu dem dem gis bi mu ko voilà ko solee ne mhm. loxo bi xoolal fi mu génne mooy da ko tëjul waaye gis nga bi mu ko dëbee sol a crochet ba bi mu nga nee ci kaw peer bi moo tax mu jaar fa mais bu fekkoon moo loolu loolu bi bunt bi mu jaar fa mais su fekkee bi mu dëbee sol nii kaay bon la dëbb nga ma sol nii. Ah. ma ne nii doo ëñ. déedéet bi ko franc di. sànni waaw bi ko sànni. loxo baa ngi nii voilà gis nga gis nga day dem day dem day dem. day dem hmm. loolu moo tax gis nga jow kii bu seetaane kal li dama xam li ma ko wax hmm. dina xam li ko père Birahim wax mooy dëkk gi bu buñ la dëbbee sol hmm. buñ la sa loxo bu demee nag heureusement da nga war na bañ sol bi mais comme fooroon mën na ko bañ su ko see dugg rek neen nii freiné rek mu ne jàmpkatu katu nga àggale ne ci yeeq ngembali daal éliminer loxo bee soo la neexee nga tegal ko sees wala nga daw bëtt wala nga def la nekk borom kàttan nga mën nga am lu ne. Mm-hmm. fi ne boo xasee am lii. Mm-hmm. rek rasu boo defee nii nag dafa am lu muy àndal mooy tànk bii ngay ràcc doo bi mm-hmm. nga boo defee nii tànk bii ngay ràcc rek wàcc. su dee ci bëri dóor léppay leer su dee bëri simple mën ngaa taf daw yéeg. plaqué daw yéeg lu ne ngi fi quoi. waaw lu ne amoon na booy bi amoon na ko fi. Uh-huh. waaye li ko daal waa ji da ko ëñ mu gisaat mu génne loxo ba xool fi mu génne léegi ah, waa ji looloo ko may xoolal xoolal Franc ñaar loxoom yëpp takku na. te lii waru woon a ñaar loxo kay bu takkoon ni ci ku ëpp doole nga rocc xool loxo bi ne mu rocc koo ci kaw. Hmm. loxo bii waa bu ko bu ko bloqué woon rek bu téye tey tey yoon loxo bi rek kii du am dara. ay ca ñu dem. Ah, waaw voilà ba léegi nag bi nga xamee ne jëkkëri na. léegi mu de ko wëlbati ko nag pour jox ko côté bi mu mënee. Hmm. ah gis nga léegi mu daal di ko daal gis nga bi muy wàcc bi muy tourné. waaw si gi wut tourné waa ji wàcc boole ñaari ci suuf bi ko Franc wëree ndomba kon tas yaakaar est-ce que amoon na sensu moment bi ko Franc wëree ndomba mu mu pivoté génn. pivoté mun ko rëcc parce que xam nga pivoté foofu. Hmm. xanaa moo am sens dëgg ko ci génne. boo amul sens munu faa parce que Franc fi mu ko àgg fi mu ko àgg pour mu rëcc. Hmm. dafa waroon tëj bunt bi rek balaa àgg si foofu. tëj bunt bi mooy waa ji dëbb na ko sol mu crochet mbagg bi éliminé loxo bi loolu rek moo doon yoon. defu ko bi mu ko deful rek gis nga ko waaj fi mu ko àgg daanu rek parce que te te Franc it niilul te it néewul Mm-hmm. ba pare àgg la fii koo xam ne bu bu ñu tawee balance moo lépp doole. Mm-hmm. te di ndaw comme yow. féete la fii xool loxo bi mu àcc ci kaw digg lii xool lii lii rek jël la te tànk yi xol ni mu taxaw xool ñaar tànk yi. Mm-hmm. da ko am bu dajale du am dara fii. mais fii yëpp nag euh, obli kii bi euh, tas yaakaar. waruñu foon àgg nag. waaw waru waru foon àgg fii yëpp mënoon na fi bañ àgg. waaw ca commencement ba rek la waroon yëpp bi mu ne bëxër ñeet rek. la daal di ku dabb sol si loxo poxtaan bi rek day crochet mbagg bi rek indi loxo bi mooy li ma la rek doo am dara gis nga ko day daanu. mais père fii am na lu ma ci seetlu. waaw ah. mooy tas yaakaar daanu na. Mhm. mais moment bi mu daanoo mhm. yëkkati franc. Ah. sànni ci ginnaaw dafa mel ni damaa gis ni dama constaté ni xale bi dafa am doole macha allah. non non loolu doole mm. loolu du doole. Mm. bi mu ko toogee nii xam nga dafa toog. Mm. kële gis nga xam nga tànk bee taxawul. benn tànk bi la sukk. mu jàll ko ci ginnaawam noonu. waa kii kii comme day bàyyi ko rek. Mm-hmm. loolu yomb na fii ne tey ji yow boo fa toogoon sax mën nga ko def franc. ma que voilà gis nga voilà gis nga lii. Mm-hmm. du ci dara. moom moom ah. acrobate la rek kii acrobate la la franc def rek. Mm-hmm. mais bu ko defoon sax mën naa bañ dem. mais mais deux gis nga tànk bi gis nga benn tànk voilà. gis nga dafa téye ngemb li ca delloon. mais di gis nga xam nga dafa téye ngemb li ca ginnaaw. Ah. ba pare toog bu toogee day am doole. kii benn tànk bi taxawul benn tànk bi rek sukk. benn tànk la taxawee. te yàgg naa la wax benn tànk a ko teg di am doole yëpp. déedéet mënut a benn tànk yi mënoo ko taxawee di am du kattan. déedéet gis nga ñii. lay xool xam nga lii ni mu toog jaaxaan ba pare waa teg ci mu téye ngemb la gis nga ñaari flan yi mu tëdd ca ginnaaw. da koy jàll rek kii moom dootu ci sonn sax day dem sax parce que daan na ba pare rek. waaye bëri bi tëju woon na woon ak si fii yëpp. père mu nekk lamb joo xamante keroog. lamb moo waaj bàyyi ba mu tourné rek mu nguufaan ca suuf. kon bu ñu la waree ndomb rek amatoo droit tourné. ah par exemple léegi yow. yow de ah des fois nga jàpp nii. waaw waa ji daa xamul nu muy jàppee rek daw te day fekk ne dafa deful nii. maanaam bu la waree ndomb. Mhm. day fekk ne dënnam bi da koy teg séddi ginnaaw ba pare sermé ndem daal di laaj ci tànk yi. bu defee nii nooy wëngati ko doo mën a dem moom. bu xamee ni mu jàppee doo wëlbatiku waaye bu fekkee damaa yolomal samay tànk def samay loxo nii ba pare taxawaay taxawaay bu bon boo amee sama bras bi bu la neexee tourné dem yo soon da ngay dem waaw mais man nag bu fekkee am naa lu neex ba pare hmm. léegi damay téye rek daal di rek ne ràcc taxaw téye la foo jëm fenn mënoo xam dara fi mu ne nii dama naa teg man man am naa lu neex ba pare moom laa doon wut hmm. am naa ko nu may def père su ma mënoon bërëm wat naa la <laughs> de doo mboot parce que gis <laughs> dama ni ma la seeree <laughs> ah. ak ni ma tegee sama ginnaaw sama dënn moo demee samay tànk ñëwul ah, ah, ah. sama sama dënn moo demee samay tànk ñëwul waaw hmm. mu nekkoon mais attention rek gis nga hmm. franc yi ni mu bëree nii hmm. ku mënta bëri lool pour nga daan ko dina jafe de waaw parce que bëri bi mu bëri nii am na dëbb sol làll bi tata fu la daw tu sol parce que fu ñu la bëgg a ñëw mu ngi wut mu la féete suuf te ponkal xajul ci yàlla fu ci suuf boobu nag Ah, foog nga doon bëri ko waa ah, xoolal xool wëlbati ko bi mu du yoon. Hmm. wëlbati ko bi mu def du yoon du yoon. côté bi bi ko waaj a bëtte rek naaw gisoo wëlbati ko bi du yoon dellool. Hmm. wëlbati ko bi du yoon gis nga fii xool delloo delloo delloo delloo tuuti. <laughs> voilà de voilà delloo delloo <laughs> delloo tuuti bi maa ngi lay tal voilà loxo bii mu génn ci yoon bi. waaw gis nga bu croché woon mbagg mi nii. Hmm. ràcc tànk bi du daan loxo bii lay dindi rek loxo bii lay dindi bii. loxo bi ci kaw moo bii rek bii lay dindi benn loxo bi lay dindi rek waaw mhm. ah, loxo boobu lay dina waaye gis nga mu taal ñaar loxo bëgg a pivoté bi fooy rëcce da koy bàyyi ba mu tourné nag xam bu tourné ñaar tànk yi day daje. Mhm. mu wàcc boobu nguufaan daal ko ëmb. noonu la Franc daanee tas yaakaar jël bu amul benn werante mais waaw arène nationale euh, Père Birahim dañuy ñëwaat ci beneen combat aussi euh, mais champion ko daan nag mhm. waaye kii mi tamit Euh, mooy kii nu mu tëddee tas yaakaar bi. Hmm. Euh, bu gënee góor góorgóorlu ci làmbam. Hmm. dégg nga seet ay defam ay erreur am ko yokkaat tuuti xam-xam mën naa weesu fii. Hmm. waaw parce que man gis naa yi mu doon daan ba bi mu yegg si final. waaw waaw def ki mu daaneel ki ko daan nag daana na ko daan. daana na ko daan. jërëjëf euh, Père Birahim ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci leeral bu am solo boobu. doxoon ci diggante Tass Yaakaar ak Emine François Gomis. waaw fële ci arène nationale dinañ leen indilaat beneen combat incha allah.